al mabaadiu sarfiya dafay jàngale mm, xam-xamam sarfu ñu ngi woon ci darsu saalis darsu ñetteel bi liñ njëkkoon jàng mooy lan mooy sarfu sarfu mooy xam-xam bi lay jàngal nan ngay changer baat yi pour am maanaa yi nga soxla ñu jàngoon nag yi nga xam ne sarfu dana ci dugg ak yim du dugg waxoon nañ ne fi'lu bu mën am maadi mudaari amr ak isim boo xam ne ni muj gën nangu naa changé dem ci euh, rafa nas jar loolu mooy nangoo soppeeku amma fi'lu boo xam ne mënul am maadi mu daal am bu amee beneen du am bu ci topp wala ñett yu daal benn dana ci manque ak isim bi nga xam ne seen anam rek lay taxoo fataxa rek wala kasra rek wala damm rek yooyu du nangoo soppeeku maanaam isim yi ñuy binaal du soppeeku fenlu ja fenlul jaamide yi duñ soppeeku isim yi ñuy inrab mooy soppeeku ak fenlu yi am maadi mu daaru amr loolu lañ jàngoon ci paas ñu ngi ci dar su ñetteel bi muy jàngale sarful asmaa yi nan lañuy sarfoo tur yi isim yi wala afaal ak fenlu yi fenlu dafay soppeeku waaye nan lay soppeeku tur day soppeeku nan lay soppeekoo defe naa ne loolu déggoon nañ ko sax ci darsu bi weesoon ndax xamoon nañ ne fi'lu nu muy soppeekoo mooy mu jugee ci maadi dem ci mudaaro dem ci amr dana yeneen nag mën naa am ismu faa'il ismu maf'uul waaye danañ ci ñëw ismu nu muy soppeekoo mooy jugee ci kenn dem ci ñaar dem ci mbooloo loolu dañ ko waxutoon ci darsu bi passé comme nii rek waaye daanaka déggoon nañ ko ci darsu bi passé kon fi'lu nu muy soppeekoo ci gàttal mooy mu jugee ci di dem ci mudaaro dem ci amp ism nu muy soppeekoo mooy mu nangoo am ñaar nangoo am mbooloo dégg nga te isim bay tekki ñaar nag walla bay tekki mbooloo ci biy tekki kenn lañ ko xottee bokku ak xaasaan yi nga xam ne lay tekki ñaar tegginu boo xam la jógeewul ci xaasa am siratun li mooy misaal yi lay jàngal fexlu nan lay soppee kataba bind na yaktubu dana bind uktub bindal nga déggee ci ne baatu kataba day soppeeku parce que mën naa dem ci maadi dem ci amr iqtaraba jege na yaqtaribu dana jege iqtarib jegeel day changé parce que duggee na ci maadi dem ci mudaaro dem ci amr shariba naan na yashrabu dana naan ishrab naanal day changé lu tax jugee na ci maadi dem ci mudaaro dem ci amr xafisa mokkal na yaxfasu dana mokkal ixfas mokkalal day changé lu tax parce que jóge na si maadi dem si mudaari dem si amr kon sarfu afaal yi sarfu fi'l yi mooy jëlee ko si maadi yóbbu ko si mudaari yóbbu ko si amr lii mooy misaalu ismu yi baabun benn bunt baabaani ñaari bunt ak abwaabun ay bunt ah ismu boobu dafay soppeeku parce que nangu naa jóge ci kenn dem si ñaar dem si mbooloo madrasatun école kooku benn la mu def ko madrasiyun ka juk école foofu dafa bëgg a jàngal ne isim bu nangu nisba nangu naa soppeeku nisbatu mooy lan mooy isim bu nangu ñu askanee ko dara waa juy taxoo école ba rek ma nga wax madrasiyun ka juk école maanaam kii école rek lay taxoo bañ askanee ko école isim bu nangu ñu askanee ko dara rek xamal ne isim bu ñuy inraab la xamal ne dafa soppeeku manam manam ñaar manam boro nisbatu nak soko ko xam isim bi rek ngay jël yok ci yaaguñ sadda kasara la ñëk yaago su fekke isim bobu ci ciosan dafa amon ta ta gog dang koy dag sanni yok ci yaaguñ sadda kasara la ñëk yaaga makkatu amna ta bo def nisba da ngay taaga nga ne makkiyun kiyun madrasatun am na taa boo koy def nisba daggal taa nga yokk si yaaguñ shadda kasara la njëkk yaaga muy madrasiyun amaa bu fekkee amut amut taa moom yokk si yaaguñ shadda rek kasara la njëkk yaaga xalamun nga xalamiyun ka jug bik kitaabun kitaabiyun ka jug téere sénégalu nga ne sénégaliyun ka jug sénégal ba mu jeex kooku noonu kese eh, lañ koy defee xalamun bik nga ne xulay mun as bik kooku tasxiir la isim bu nangu ñu def ko tasxiir nangu naa soppeeku tasxiir mooy ndawal tuutil tuutil xalamun big nga bëgg wax ne lii big bu tuuti la nga ne xulaymun as big wala nga xeeb ko rek tuutiwul waaye da nga koo xeeb rek man nga koo def tasxiir boo ko xeebee ne mun isim bu nangu loolu nangu naa soppeeku tasxiir nag niñ koy defee mooy isim bi bi ngay bëgg tasxiir dàmmal xarafu njëkk wa dégg nga ñaareel ba nga bokk ci fataa dafay fataa nga fataa ko yokk ci yaa guñ sukkoon mu jeex xalamun nga ne xulaymun darsun duraysun wala dun nga ne wulay dun teflun tufaylun borom xam-xam ne dañuy bañ xam-xam nga di ko tasxiir wala boog lu yàlla fonk daal nga def ko tasxiir muy ndawal ko loolu dañ koy bañ am sañu sax ñu ay nit waaye defe naa ne boo si jubloo ndawal yàlla màggal xëy na mooy nekk kéefér waaye nag bu fekkee jubloo si loolu mën ngaa bañ a nekk kéefér waaye gënul daal kon noonu la ñuy tasxiir am na yeneen sew-sew yu nekk ci biir waaye li ëpp ci ñuy tasxiir dañuy dàmm bu njëlbeen ba fataaxara bu ci topp yokk ci yaaguñ sadda mu jeex xalamun nga ne xulay mun darsun nga ne hada du rëy sun as darsu la maam darsu bu tuuti la rëyut wala dun nga ne wulayit as la teflun nga ne tufaylun asxale la ba mu jeex isim bu nangu loolu nangu naa soppeeku mooy nangu naa am musanna nangu naa am jëmm kon isim ni ñu xamee soppeekoo mooy mu mën a jugee ci kenn dem ci ñaar dem ci mbooloo mën a nekk nisba mën a nekk tasxiir nisba ak tasxiir leeral nañ ko albaaxsu li mooy gëstu bi guddut a taaifatul ula kuréel gu njëkk gi min haadihi alkalimaati ci le baat mustamilatun aji làmboo la ala afaalin ci ay fi'lu yoo xam ne nuqilat toxal nañ ko minal maadi jugee ci maadi ilal mudaare jëm ci mudaare wa ilal amru jëm ci amru kuréel gu njëkk gi li nga fa gis kataba yaktubu uktub iqtaraba yaqtaribu iqtarib ba mu jeex danga faa gis fi'lu yu jóge ci maadi dem ci mudaare dem ci amru wa taifatu saaniya kuréelu ñaareel ga fiyaa nekk na ci ismun tur mooy baabun bunt nuqilat toxal nañ ko minal mufrad jugee ci kenn ilal musanna jëm ci ñaar waylal jami jëm ci mboolo kon loolu day soppeeku wa ismun beneen tur te mooy madrasatun école nusiba askanee nañ ilayhi jëm ci moom askanee nañ nit jëm ci école boobu ne madrasi yun ka jug école kon day soppeeku ndax luñ mën a askanee rek dafay soppeeku wa suxiran ndawal nañ ismu xalam turu xalam ismu xalam turu xalam bi firi bik nga ne xulay mun kon day soppeeku ndax luñ mën a tas tasxiir rek mooy luy soppeeku fa bi zalika ci loolu taarifu ngay xam maa yi lii lay dikk boo xamee lii da ngay xam ne lu mën a jógee ci maadi dem ci mudaar dem ci amru ci afaal yi kooku day soppeeku lu mën a jóge ci mufrad dem ci musanna dem ci jamu wala dem ci nisba dem ci day soppeeku ci ismu yi walla ngeen jàpp rek waxoon naa leen isim bu ñuy arab mooy la xam ne mujj gi mën naa rafa nasab jar maanaam mën naa damm jóge fa dem fataha jógee fa ñëw ci kasra bu buñ ko iraam duñ ko tuddee daam loolu dinaa si ñëw comme nga ne jaa saidun raaytu saidan marartu bi saidin gis nga dun dan din kooku lañ ko iraam lu ñuy iraam lu rek nangu naa soppeeku nangu na nisba nangu na tasxiir ba mu jeex amma luñ du iraam comme allazi gis nga mujj gi lazi rek la jaa allazi raaytu lazi marartu bi du changé mukk mujj gi lazi ni nga gis mujj gi mel noonu noonu lay mel kooku du soppeeku du am musanna du am jamu bo ci gisee lu niro musanna nag xamal ni musanna bi dañ ko tëgg tëgg ni bu xam waaye jele wuñ ko ci mufrad su ko defee loolu moo di tënk-tënk darsu boobu xulaasa li mooy tënk dars bi nga ne ko lan mooy sarfu maadi mu ne sarful fi'li sarfu fi'l hu moom naqlu mooy toxal ko minal maadi jógee ci lu passé ilal mudaara jëm ci mudaara aw ilal amr wala jëm si amr misle comme daraba dóor na yadribu dana dóor idrib dóoral maadi mudaara amr wa sarful ismu sarfu tur naqluhu mooy toxal ko minal mufrad mu jugee ci kenn ilal musanna jëm ci ñaar wa ilal jami wala mu jëm ci mbooloo aw ilal nisba wala mu jëm ci askan aw ila aw it tasgir wala mu nga mën koo ndawal mislu comme xalamun big kenn la xalamaani ñaari big ñaar la aqlaamun ay big mbooloo la xalamiyun kajug big kooku nisba la dañu askan waaji ci big xulay mun as big kooku tasgir la da ko ndawal tasxiir na arab dana koy def dara ngir yërëm ko dana koy def ngir ndawal ko dana koy def ngir xeeb ko dana koy def fekk dafa ndaw rek dana koy def fekk da koo xeeb dana koy def fekk da ko yërëm yooyu yëpp dana ci am tamarin li ay jéemantu la sarrif soppil al afaal al aatiya fi'lu yu dikk kama taallamta comme ni nga ko jàngee maanaam jëlee ko ci maadi yóbbu ko ci mudaari yóbbu ko ci amru qaama taxaw na andil mudaari ak amru bi loolu nag jéemantu la rek waaye li soxla rek mooy nga xam ne fi'lu bu nangoo jógee si maadi jëm si mudaara jëm si amru dafa soppeeku mais teewul nga xamaale bi lan mooy mudaara bi lan mooy amru bi dalay yokku xaama taxaw na andil mudaara bi ak amru bi xafisa mokkal na naqala toxal na zaama woote na baata fanaan na jaa dikk na banwuda sori na xaada toog na shariba naan na manaa tere na yii yëpp maadi lañ ana seen mudaara bi ak seen amru bi yow yaa andi sanni defal ñaar al asmaal isim yi dikk su maj su maj maa topp nga def ko jamu am na si yoo xam ne sax jotoon nañ ko def jamu si du passé mais lim bëgg nga xam ci darsu bi mooy ne ismu bu nangoo duggee bu nangoo dem ci ñaar dem ci mbooloo dem ci nisba askan dem ci tasgir nangu naa soppeeku loolu la bëgg nga xam waaye lii tamit dana baax nga mën a xamaale ismu yi lan mooy seen musanna ak lan mooy seen jamu waaw mais mais nag lañ soxla si dëgg darsu bi dëgg mooy nga xam ne isim bu jugee si mufrad dem ci naa dem ci jamo rek dafay soppeeku li ko tax a changé parce que maanaa ñëw bokkut jamalun gëlëm indil ñaari gëlëm mbooloom gëlëm xisaanun fas maktabun taabul shubbaakun fenêtre boobu yaakaar naa jotoon naa romb ci gannaaw kuraasun kañ boobu yaakaar naa romboon na ci gannaaw mistaratun reegal reegal yi yi bindee nga xam ne danga koy taaj nii eh, mën a rëdd rëdd bu jub loolu laa wax eh, min diirul musuwaar yooyu mën naa am musanna ak jamu andil seen musanna jamu saxir ndax wala la asma aatee isim yi dikk dana ci yoo xam ne nii il faut ma wax ko parce que xawaayit yi koy tënk ba nga mën ko def tasxir jàngale gudd la mais liñ soxla ci dar si mooy xamal ne lu mën a ndaw rek lu ñu mën a ndawal rek dafay soppeeku kitaabun téere kooku yéen bu ngeen ko doon tasxiir ak jamono ji mën naa xaw a compliqué tuuti waaye ku tay yibun ngay wax ku tay yibun ku tay parce que ñetteelu arafa alif la léegi nag arafu njëkk yi boo ko dàmmee bu ñaareel bi fataaw nga yokk ci yaa alif googu danga koy changé yaa ñaari yaa bu ñu dajee foo nga sadd benn bi ci benn bi moo tax moo loolu moo indi ku tay yibun ay góog da ko def sadda alif gi da nga ko changé yaa kasara hmm? noonu lañ koy defee waaye yooyu darsum dana ñëw darsun darsu loolu moom war ngeen ko mën a tasxiir comme la ma waxoon rek dàmbal bu njëkk ba fataa bu ñaareel ba yokk ci yaa mu jeex xidrun cin xidrun jigéen la te baat boo ko tasxiiree te muy jigéen te amul taa da ngay indi taaga da ngay indi maanaam boo ko boo dàmmee bu njëkk bi fataa bu bi yokk ci yaa yokk foofu taa comme taawu imraatun taawu madrasatun taagu mel noonu nga ci yokk boo ko tasfiree kalbun xaj oo yow mun naa tasfir amul problème kalbun xol aqlun xel yooyu yow mun naa tasfir su ko defee yooyu ngay tasxiir mën nañoo dem ci darsu rabi wala boog baax ak darsu ar rabi darsu ñeenteel bi bi ñuy jàng parce que darsu ñetteel bi defe naa ne déggoon nañ ko ci darsu ñaareel bi darsu rabi bi nag moom aju na setantal al fi'lu bi xasabil asli la jàng xam nga fenlu yi dafa am yoo xam ne dañ cee yokk xaraf yoo xam ni duñ cosaan ak fenlu yoo xam ni cosaan lañ yokkuñ ci benn xaraf fenlu yu ñu dara nag nan nga leen xàmmee loolu la ñuy yi nga xam ne cosaan la yokkuñ ci dara dara dara dara loolu la jàng tey fenlu yi ñu yokk danañ ci ñëw mais dafa am manaa fenlu yu ñu yokk ay xaraf yu ci bokkut xaraf yooyu du cosaan dañ ko cee yokk pour soxla yeneen maanaa ak fenlu yoo xam ne seen xaraf cosaan la yokkuñ ci dara yooyu la jàng jàppal ne fenlu boo xam ne cosaan la ñetti xaraf rek la mën a doon wala ñeenti xaraf du ñetti xaraf la mën a doon fenlu boo xam ne yokkuñ ci dara ñetti xaraf la mën a doon wala ñeenti xaraf fenlu boo gis muy juróomi xaraf wala juróom benn xaraf am na luñ ci yokk xaraf wuñ ci yokk te bokkut ci xaraf woo na danañ jàng ci kanam nuñ koy xàmmee ne bii lañ ci yokk bii lañ ci yokku kon fi'lu bu ñu yokkut dara ñetti xaraf lay doon wala ñeenti xaraf lañ jàpp lool su fekkee ñetti xaraf la moo tudd al fi'lu al sulaasi al mujarrad fi'lu boo xam ne ñetti xaraf la te dafa rafle dafa rafle maanaam yokkuñ ci dara bu dee ñeenti xaraf la moo tudd al fi'lu al rubaai al mujarrad fi'lu boo xam ne ñeenti xaraf la mais dafa rafle dafa rafle moo yokkuñ ci dara al rubaai mooy ñeenti xaraf la al sulaasi mooy ñetti xaraf la كون فعل بو نيوك درا واخنا لا نيت حرف لاي دون تا سو بوبا الفعل الثلاثي المجرد دنج كوي تودي فعل ثلاثي بو رفلي ولا نينت حرف تا سو بوبا الفعل الرباعي المجرد دنج كوي تودي فعل بو خا نينت حرف لا مي دا فرف لا يوكن سي درا لغي نك نيوم نيون صرف دانيو جيرون باتو فعل دا كو موي بلاص بو خا ني سي لي ني بيسي مبولم فعل يي فا اك عين اك لام su fekkee fi'lu bi dafa maas ñetti fataha ñu ne fi'lu bi dañ koo tëgg faala maanaam ni faala maasee noonu la fi'lu bi maasee faala su fekkee benn fataha la kasra ñu ne fi'lu bi dañ koo tëgg faila maanaam ni faila maasee noonu la fi'lu bi maasee bu dee fi'lu bi fataha la ak dàmm ak fataha ñu ne fi'lu bi dañ koo tëgg la maanaam ni faula maasee noonu la maasee fi'lu nag bu fekkee ñetti xaraf la te yokkuñ ci dara tëggin ba faala lay doon wala faila wala la du mën a génn yooyu ñetti tëggin yooyu rek la moom fekk moom bu dee cosaan la nekk ñetti xaraf da gis mu nekk ñetti fata wala boog benn fata ak kasra ak beneen fata wala benn fata ak daamu ak beneen fata maanaam xarafu njëkk bi bu mujj yi foofu dañuy fata bu digg bi mën naa fata ñu ne faala lañ ko tëgg bi digg bi mën naa kasara ñu ne la lañ ko tëgg bu digg bi mën naa dàmm ñu ne faula lañ ko tëgg darsu bi buñ ko déggee daf ñuy dégg loolu beneen darsu ba ci topp yaakaar naa ci kanam kon fi'lu boo xam ne sulaasi la tëgginam ñetti tëggin yii la faala faila faula maanaam ni faala maasee noonu rek la mën a maasee wala ni faila maasee noonu rek la mën a maasee wala nu la maasee noonu rek la mën a maasee dangay xam ne fi'lu bi cosaan la ñetti xaraf la yokkuñ ci dara moom lay joxe misaal najaxa admina al mujtahidu aji góorgóorlu kooku luñ ko tëgg faala parce que moom faala ñoo bokk masque najaxa faala la kataba faala la daraba faala la yooyu yëpp faala lañ ko tëgg yooyu boo leen xoolee dangay xam ne yii seen xaraf yëpp cosaan la ci fi'lu bi lañ bokk yokkut ci dara parce que ñetti xaraf lañ te faala lañ leen tëgg fi'lu bu nekk ñetti xaraf ñi maas yëpp fataa xamal ne fi'lu boobu xarafam yëpp cosaan la yokkuñ ci dara xafisa mokkal na alwaladu xale bi ak darsa darsu bi xafisa kooku faila lañ ko tëgg faila maanaam niñ maasee faila noonu lañ ko maasee moom xafisa dégg nga kon da xam ne fi'lu boobu ñetti xaraf yëpp cosaan la yokkuñ ci dara ñetti xaraf yëpp ci fi'lu bi lañu bokk cosaan la xasuna rafet na alamalu jëf ji kooku fanu la lañ ko tëgg xasuna fanu la maanaam niñ maasee fanu la noonu lañ ko maasee loolu lu lay jàngal dafa lay jàngal ne baatu xasuna xaagi ak seen gi ak nuun gi yëpp cosaan lañ ci fenlu bi yokkuñ ci dara kon fenlu sulaas yi ñetti tëggin la am fan la fan yi la fanu la fenlu boo gis muy ñetti xaraf fenlu sulaas yi lañ koy tuddee su fekkee dañ ko euh, maas fan la comme niñ maasee faala muy fata kessé wala faila digg ba kasra wala faula digg ba dam xamal ne fenlu boobu ñetti xaraf yooyu yëpp cosaan la lool moy fenlu cosaan boo xam ne sulaasi la euh leg leg nak ñu soxla yenen mana tax ñu changer ko ni ki duri ba dóoreef nañ kogu kogu kogu mom ni leen majhul la boobu cosaan la waye bo bokku ci teggini nga xamne ne cosaan la lool benen mana lañ soxla mo tax ñu jox ko ñu jox ko masque boobu loolu dinañ ci ñëw ay fenlu sulaas yi masque yi ñuy masque cosaanam masque boo gis ñu maasee ko la wala faala wala faala rek xamal na yokkuñ ci dara fenlu rubaa yi bu dee cosaan benn tëggin rek la am xam nga fa ak ayin ak laam laa waxoon ne moom lay arab yi di peese léegi nag su fekkee fenlu bi dafa ëpp ñetti xaraf du maa nekk fa ak ayin ak laam laam gi la ñuy doublé def ko ñaar laam gi dañuy duble def ko ñaar su ko defee ni fenlu bi maasee rek ñu maasee ko faagi ak ayn gi ak laam gi buñ doublé beneen laam bi ñu maasee ko noonu qaxqara aliyer na aljabaanu tàppal bi loolu loolu fataa la ak sukkoon ak yeneen ñaari fataa kon buñ la waxee lan lañ ko tëgg neel faala la baatu faa ak ayn ak laam ah nga amoon nga ne moom ngay peese bii nag tey ëpp na ñetti xaraf te cosaan la yokk ci beneen laam nga duble laam bi léegi ñu ne la qaxqara nuñ ko maas xoolal niñ maasee qaxqara nga maasee ko fa la fa ak ayn ak ñaari laa mi nga ne fa la la kon qaxqara ñu ngi ko tëgg fa la la bépp fenlu boo gis mu nekk ñeenti xaraf ñu tëgg ko fa la la maanaam mu nekk ay fataha kese ñetti xaraf yëpp nekk fataha bu ñaareel bi rek nekk sukkoon xamal ne fenlu boobu cosaan la rubaa yi la goo xam ne cosaan la yokkuñ ci dara qaxqara al yarna al jabaanu tappel bi xaqara fi'lu cosaan la parce que faala lañ ko tëgg te yokkuñ ci dara daxraja béréeg na al waladu lañ ko tëgg parce que niñ maasee faala la noonu lañ ko eh, kon fi'lu cosaan la waaye rubaayi la al mu al rubaayi al mujarrad yokkuñ ci dara daxraja xaraf yëpp cosaan la yokkuñ ci dara xasaasa leer na alxaqu dëgg kooku xas-xasa faala la lañ ko tëgg comme que ñeenti xaraf la. bu ñaareel ba rek moo sukkoon yi des yëpp fata da ngay xam ne lii faalala lañ ko tëgg niñ maasee faalala noonu lañ commencé kon fenlu cosaan la te ñeenti araf la kon rubaa yi fenlu rubaa mooy fenlu boo xam ne ñeenti araf la am kooku benn tëggin rek la mu jaratam bi am bépp fenlu boo gis muy ñeenti araf te tëggeewuñ ko nii xamal ne am na araf buñ ci yokk tey xaatala xaatala ñeenti araf la xaa ak alif ak taa ak laam eh, mais mais bu ñaareel bi alif la mais du sukkoon kon loolu du cosaan xamal ne am na luñ ci yokk lañ ci yokk nag danañ ko jàng feelu ci cosaan ñaari xaaj la benn mu nekk sulaasi wala rubaa yi sulaasi ñetti tëggin la am faala faila faula rubaa yi benn tëggin la am mooy faala la faala la jeex na albaxsu li moo di gëstu bi faalam xamal أن كل واحد ني لن لنك من هذه الأمثلة تشيل مثال مبدون دفو كماسي بفعل انتفعل من مثال يي نجي جس بنك فعل لكماسي فإذا تأملنا بنشتن ترى دينا أفعال القسم الأول فعل قاج فعل يقاج بنجكبا قاج بنجكبا سامي فعل بنكو سرنتري وجدنا أن فك كل واحد بين بنك منها تفعل يو متركبا متوغلو من ثلاثة أحرف نيت حرف نجح نيت حرف لا أدمنا حفظ نيت حرف لا مكلا حسن رفرنا نيت حرف لا وتلك الحروف يوي حرف جميعها سن بولم سن اصلي تشسان لا حرف يويب يب تشسان لا أمود لنشي يوكو مانام لوتاخ مون لا ne لا cosaan la mooy دا يق معنى كل فعل معنى maanaa فعل منها maanaa bépp bi isqaati xarfin ci rotal benn xaraf waaxidin benn min xurufi salaasati ci xarafi ñett yi tey najaxa boo dindoon xaa gi doo amati dara doo amati benn maana boo dindoon jiim gi maana bi du ñëw boo dindoon nun gi maana bi du ñëw loolu moo lay wane ne xaraf yooyu cosaan la xaraf yu cosaan mooy loo xam ne boo ko daggee maana bi du ñëw tey xaatala mooy firi xeex na boo dindoon alif gi day des xatala rey na kon alif gi yokk la dañ ko see yokk waaye bokkut si moo tax boo ko dindee maanaa bi du yàqu danga am beneen maanaa mais xaaf gi moom boo ko dindee wala taa gi wala laam gi doo am benn maanaa parce que yooyu cosaan la kon xarafi cosaan mënul rot bu rotee maanaa bi du leerati xarafi ndollaan nag mën naa rot mu amaat beneen maanaa dégg nga kon xaraf woo ci rota rek maanaa bi yàqu fu kullu fi'lin bépp fi'lu murakkabun dafa toggaloo min salaasati ahrufin si ñetti usulin yuy cosaan ñetti fi'l yu yëpp xarafi cosaan la yu sama dañ leen tuddee fi'lan sulaasiyyan fi'lu sulaasi bépp fi'l boo xam ne ñetti xaraf yëpp cosaan la te buñ ko tegee faala wala faila wala faula rek xamal ne ñetti xaraf cosaan la maanaam boo si dagg maana bi bépp fi'l boo xam ne ñetti xaraf yëpp cosaan la tuddee ko fi'lu sulaasi mooy fi'l boo xam ne ñetti xaraf cosaan la am way na kulla waahidin naka benn bu nekk min afaali qismi saani ci feelu xaaju ñaareel bi mu rakkabatun dafa toggaloo min arbaati ahrufin ci ñeenti xaraf usulin yee cosaan beneen xaaj ba muy xaxqara daxraja xasaasa benn bu nekk feeloo ñeenti xaraf la taaraf woo fa dagg ba yàqu kon xarafi cosaan la takk-takk nag bi lay xamal ne xarafi cosaan la mooy mu nekk ay fataa kese bu ñaareel bi sukkoon loolu faala la lañ ko tëgg xamal ne cosaan la fa kullu feelun bépp feelu nag mu rakkabun bu toggaloo من أربعة أحرف سنين تحرف أصول يوتيوسان يسمى رنكو تدي فعلا رباعيا فعل رباعي فعل رباعي مويلان موي فعل بام نين تحرف يوتيوسان فعل سلاسي مويلا لن موي فعل بام نين تحرف يوتيوسان خلاصة لموي تنكين الفعل فعل بحسب الأصل يوتيوسان قسمان ياري خلا فعل يوتيوسان تيو كنش دارا خمال نياري فاسم فعل رجلا fi'lun sulaasiyun fi'l boo xam ne ñetti xaraf la mislu comme samia dégg na najaxa admina exemple la yooyu ñetti xaraf la wa fi'lun rubaayun ak fi'l boo xam ne ñeenti xaraf la mislu comme daxraja bérëng na jara coow na coow mooy wax na ci kaw dégg kooku ñeenti xaraf la daxraja zamjara moom nag lim soxla nga xam ci darsu bi mooy ne fi'l boo xam ne yokkuñ ci dara sulaasi la ak rubaa yi yu am ñetti xaraf ak yu am ñeenti xaraf amaa yi am sulaasi noo koy xàmmee ak ñett ñaata tëggin la am kooku dana ko defalaat darsu boppam mais boo déggee darsu bi da lay gën a yombalal boobu yu am sulaasi dañ koy tëgg fan la wala fan wala fan la yooyu dana ko andi bi nga xam ne rubaa yi la te cosaan la fan la rek lañ koy tëgg yi nga xam ni ndollal la nag te ñu jëlee ko si am ñetti xaraf wala ñu jëlee ko si am ñeenti yooyu dana ñëw darsu boppam bu nekk dana la woon boo ci doolee xaraf tëggin bii la yore ba nga mën koo xam al fi'lu sulaasi fi'lu boo xam ñetti xaraf la huwa moom xam ne kaana nekk na xurufu ay xarafam al asliya yi cosaan salaasatan di ñett fi'lu sulaasi mooy woo xam ne xaraf yi rek la même bu amee ndollal waaye am na ñetti xaraf yoo xam ne moom yii moom cosaan la kooku sulaasi la dana am neneen nu tudd waaye ba léegi sulaasi la rawatina bu fekkee ñetti xarafe rek moo fa nekk amul benn ndollal kooku tamit sulaasi la mislu comme dara ba dóor na xafisa mokkal na xasuna rafet na kooku ñetti xaraf la wala fi'lu rubaayi fi'lu rubaayi nga xam ne kaana nekk na dafa na xuruufu ay xarafam al asliyati cosaan arbaatan de ñeent fi'lu rubaayi mooy boo xam ne ñeenti xarafi cosaan la am mislu comme daxraja bërëg na qaxqara aliyeer na qaxqara mooy aliyeer dellu gannaaw عصعص lëndëm na عصعص bii mooy lëndëm na xasxasa bañ jàngoon nag mooy leer na alaana xasxasa alxaq mooy léegi dëgg leer na wallayli ida عصعص mooy guddi gi bu lëndëmee ñu ñëw ci tamrin bi tamarin انظر xoolal هذه هذه الأفعال yi la fi'lu waxasis jagleel maa kaana la nekk min haa ci ñoom sulaaseen di ñetti xaraf bi waadin ci xur wa maa kaana la nekk rubaayan di ñeent araf bi waadin aaxara ci beneen xur jàngal fi'il yi yi ci am ñetti araf nga wax ko yi ci nekk ñeenti araf nga wax ko yi am ñetti araf mooy sulaasi yi am ñeenti araf mooy rubaayin daraba dóor na qaxqara aliyeer na xam ngeen aliyeer mooy dellu ginnaaw zamjara coow na mooy wax na ca kaw a kaw xaraja génn na jëndala daane na jëndalahu mooy daane na ko xasbala wax na xasbunallahu wa ni'mal wakiil fii nag moom moom téere bi moom day jàngalaale ay baat yu loolu sax abiqa daw na maanaam jaam bu daw sangam nekkul ku daw nii rek de wala kuy sport waaye jaam buy daw sangam mooy abiqa xarbala lay na mooy teme teme yi jigéen ñi jël di ko def di ko layee yi ñuy lay bu ñu lay dugub wala ñuy lay cere wala ñuy lay nangam am na teme yi ñuy layee yaakaar naa loolu xam ngeen ko كي لا يتم نك موي غربلا غربلا لينا غربال موي موي فيري تمي تمي بي ني لاي موي غربال لينا نك موي غربلا لينا غربلا دني في راينا باتاي غربلا القوم موي قتلهم راينا نيت ني غربلا دي في راينا دي في تمنا شبرقه فنيتنا دغاتي مبير بام دغاتي كو فنيتي كو لولو موي shabraqa farra mooy firi daw na fartaxa tàllal na soo tàllalee dara ba mu yaatu noonu nga tàllal ko ba mu yaatu mooy fartaxa dégg nga bawuda sori na waada digg ne tam-tama ngurumtul na ngurumtul mooy wax mi wax leerut mooy tam-tama yu tamtimu yaakaar naa bayti bi dafa mel ni baat bi bàyyi dafa mel ni andi na ko ci ay baytam lu mel noonu yaakaar naa euh, wala daal baat bu ko xaw a jege dégg nga xasraja xeew na xasraja déedéet maa ngi jum xasraja suk na wala boog wala na xasraj mooy kuy kuy kuy deng-deng boo jamono bu muy génn àdduna di dee ni nooxi gi di yéegee ko jug muy xasraj xasraja sukuraat na dégg nga mooy mu ngi dee mu ngi sukuraat nooxe gi dem ko dikk loolu mooy xasaraja xasaraja sukuraat na karsafa xeew na karsafal ximaara mooy xew na mbaam mi dégg nga wala wala wala na ko rek waaw xar jama koñe na gëlëm gi nga koy nga koy dàq ba pare nga nga jël laxab gi teeku bu baax ba gëlëm gi dootu mën a demati loolu mooy koñe nga ko xar jama mooy koñe na lami ba fona baasara xebal na ko baasarahu mooy baasahu yebal na ko mu dem baasara yebal na kara a jàng na baasara yi léeg mu fi daggati na foñeti na xara a jàng na basmala wax na bismillah salsala sab na sab moo xam picc mi moo sab wala wala sonari bi moo moo sone loolu yëpp salsala lañ koy firee dañuy wax salsala aljaras mooy sonari bi sone na aljaras mooy sonari qaama taxaw na saara mujj na qaala wax na moom dafa am ay baat yu luxiwu yu luxiwu yu luxiwu ci biir téere bi dana ko indi moom misaala mi muy joxe ñaareel day andi léeg-léegi ay baat yu jafe xam su ko defee baat yooyu yaakaar naa jaar nañ ci da ngay wax yéen moo nekk ñetti xaraf ak yéen moo nekk ñeenti xaraf nga fexe jàpp firim baat yi takk ko. iti andil bi xam xamsati afaalin ci juróomi fi'lu sulaasi yoo xam ne sii la. وخمسة رباعية أجرم يا خمني ين تحرف لا وركبها عن توقرك في جملة مفيدة في جملة أمجرين بوبو تمرين بوبو تمرين إن شاء الله يا يسوس أن الجرم يفعل لا يا خمني ين تحرف كسرة دفكو في جملة أمجرين الجرم يفعل لا يا خمني ين تحرف كسرة دفكو في جملة أمجرين لولي يا يسوس مم لفي أي فعل لا يا خمني تحرف لا ين تحرف يا كنا دنقش أملو بجرم mu ne wajat fekk nga asxaabaka say àndandoor yalaabuuna ñuy fo bil kurrati ci bal bi fi saaxatil madrasati ci kuuru école bi saaxa mooy kuur rek saaxatul bayti saaxatul madrasa kuuru kër gi kuuru école bi kuuru kuuru ba mu jeex saaxa mooy kuur dangaa fekk xale yi ñuy fo ci kuuru école bi ñuy fubbal uzkur tuddal lii ñel ma seen ab yëngatu wa jamii axwaalihim ak seen mboolem xaal fii qitaatin ci sa saxiiratin bu ndaw foofu tamrin insha yi ngay def ba tey yaay sos wax xale yi niñ loon fubalee ak nañ loon doxalee ci texte bu gàtt boo xam ne du gudd xale yi nga gis ñuy fubal waxal li nga gis ci ñoom ci texte bu gàtt foofu il faut nga sos leetar bu ndaw te si leetar bi wastaamil jëfandikool fiyaa ci dogit boobu maanaam lettre boobu salaasata afaalin ñetti fi'lu rubaa'iyatin yoo xam ne ñeenti xaraf la fa ma lu ëpp ñett wa arbaatan sulaasiyatan ak ñeent yoo xam ne ñetti xaraf la fa ma ñeent ci sa biir taxi boobu nga indi na am ñetti fi'lu yoo xam ni ñeenti xaraf la wala lu ëpp ñetti fi'lu waaw lu néew néew daal na am ñetti fi'lu yoo xam ne ñeenti xaraf la mën na ko ëpp naa mit ñeenti fi'il yoo xam ne yëpp ñetti xaraf la wala lu ko ëpp biir texte bi nga indi wa sattir na nga rëdd taxtal qismil awali ci xaaj bu njëkk bi satran waaxidan benn rëdd wa taxta saani ci ron xaaj bu ñaareel bi satrayn isnayni ñaari rëdd ron xaaj bu njëkk bi def ci benn rëdd ron xaaj bu ñaareel bi def ci ñaari rëdd maanaam bi nekk sulaasi yi man nga ma ko wax texte bi nga indi yi ci nekk sulaasi yi ne ma bii baat bii ma indi sulaasi la yi ci nekk rubaay nga ne baat bii ma indi rubaay la bu fekkee da ko bind nag bi nekk sulaasi nga def ci benn rëdd bu nekk rubaay nga def ci ñaar rëdd loolu dafa naa mooy darsu kii bi ñeenteel bi mu laaj laaji kam huwa al fi'lu bi xasabi asli kam huwa al fi'lu fi'lu ñaata la bi xasabi asli ci cosaan fi'lu cosaan ñaata xaaj la loolu xaayida bi waxoon na ko ne al fi'lu bi xasabi asli nangam ñaar nangami xaaj la ما هو الفعل الثلاثي لم يفعل الثلاثي للقاعده بيوحنك الفعل الثلاثي هو نانغم ما هو الفعل الرباعي لم يفعل الرباعي قاعده بيوحنك الفعل الرباعي هو نانغم بام جيخ سبله في لول موي درسو نينتال بي موم نك اجنا خلات توتي نك ا دفنا فوق مون باخنا ان اريد الاسلام استنتم توفيق الا بالله اي توكلت بالله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته